ils ne sont au courant de rien li ma wax léegi ci ñële moo valable ñoom seen dignité ak aussi robe yi ñu sol mënu leen permettre ñuy dugg ci yenn passé si alors que sasante ni mën na nekk mais li wérte wóor mooy dara ump leen ci A ba Z dañuy toll foo xam nag léegi li ñu soxla mooy euh, libéré nañ leen d'accord mais conditions yi lan la lan moo nekk ci ginnaaw comme échange ñoom ñi nga xam ñoom lañ libéré loolu Sénégal yëpp ci kontaan mais que ñu bañ leen utiliser comme monnaie d'échange pour lan nañu ñibbi nañu toog nañu déglu. mais nañu ah, fexe ba mais nañu fexe ba lu mel nii bu mu leen dellooti ci kaso bu ñu leen utiliser ti Sénégal ñun ñëpp ko bokk. Ah, man euh, euh, monnaie d'échange bi nga tudd Kader bëgg naa ñu ñu taxaw ci parce que euh, depuis démb. ñëpp de wala la majorité dañuy wax ni que libération yi c'est parce que président Macky Sall woon na que dafa bëgg vraiment soobu ci mécanisme boo xamante dafay indiwaat jàmm ak apaisement euh, ci dëkk bi mais boo nee que de euh, d'échange ça veut dire que libération dafa am parce que euh, moom dafa joxe libération bi en contrepartie ñu jox ko leneen. loolu laa gëm loolu laa loolu laa gëm pour mu libérer leen facilement nii comme ça sans rien sans que kenn demande ko qu'est-ce qu'il gagne dans ça. mu passé outre décision wu justice yëpp passé outre léew xam ne si mooy prérogative yi mu am ak yi ñeneen ñi am le président de la république quand la ñuy wax. am na fu ko teg et fi ko teg lan la moo tax ma ni la avant que ñuy prononcé wu le 3 avant muy wax li mu waroon négocier yépp am na ko am na accord bu ma waxul ba sa sañ te wax l' ensemble des partis politiques wala responsables mën naa ni la majorité donc am na au delà de li ñuy gis lu ñu négocier ci kaw loo xam si bu feeñee fii damay ragal loxo dar gémmiñ on s'en réjouit nag di ñaan yàlla vraiment na libération yi continuer au delà même des Euh, détenus politiques ñi nga xam ne si ne nii par ay délits majeurs ay délits mineurs lañ def nañ leen profiter libérer leen. Mm-hmm. nañ leen bàyyi xam nga euh, monde carcéral bi la fa nekk dafa dafa ëpp loxo. da dem sax ñu xool yenn délits yi dañ lay fexe nga ñibbiwaat parce que amatuñ fu def nit ñi donc nag c'est l'occasion peut-être ñu gën euh, fexe génneel la maximum mu bañ a rek profiter ñi nga xam ne seen ay acteurs politiques lañ mais ak lu mën a am moom mooy quand même euh, sunu sunu sunu démocratie sunu justice mi ngi am empatir ci décision politique yi léegi nag lii ba kañ ak ba fan. Mm-hmm. ak lu mën a am moom mooy ci dialogue bi les partis politiques yi nga xam ne si ñoom peut-être ils pensent que ñoom ils n'ont rien négocié nañu am courage de soulever ce genre de point lan moo waral arrestation yi dama des arrestations massives et que à un moment am na ci ñoo xam ne taxawuñ sax devant le procureur amuñu procès ñu bàyyi leen. Mhm. qu'est-ce qui explique loolu. et que ñoom ñi ñu libéré aussi nañu fexe ba taxawal benn comité des victimes des acteurs politiques yoo xam ne si ni pour faire valoir li nga xam ne moom mooy seen i ay droits même à l'État du Sénégal bu ñu hésiter. que ils ont fait un temps quand même ci prison bi et que loolu noonu ñu leen xañ su fekkee teguñu ko ci dëgg ils n'ont pas ils n'ont qu'à porter plainte à l'État du Sénégal quel soit lu mu am parce que loolu aussi mën na dem ba foo xam ni romb na nos frontières. Mhm. parce que loolu quand même mënuñu ko bàyyi nii mu jàll. et je pense que le président de la République xalaat na bu baax a baax li mu def avant dara. parce que tey jii Juan Branco yu mel lay wut ñeneen ak ñeneen lii la ñuy wut. Mhm. barki démb dégg nañ keneen di wax donc suñu demee ba toll fii il va li ko mën def mooy ñu bañ rek se réjouir que génn nañ génn nañ non génn nañ mais histoire retiendra que lii xewoon na fi et que ñoom les détenus ñoom ñoo ñu mën a sauver et gis nga ñi écrivains yi di bind ay livres yooyu voilà lu ñu war a mën a bind. wër leen la presse dem seeti leen. Mhm. ñu am ay entretiens yu leer ci arrestation yi ci. seen seen condition carcérale naka la demee mhm. qu'est-ce qui s'est lu ñu xam ak tey ji lan lañ compté def mhm. je pense que ni génnuñu pour wax ni dañoo génn parce que am na ku ma wax dañoo génn pour libérer le Sénégal mais non bu ñu bu ñu demee ci ci ci ci logique boobu kaawa mën na am très génn nañ nañu profiter ci li nga xam ne moo di seen liberté sans autant ñuy mën a yeneen combat yoo xam ne si ne ni dafay suuxal réew mi nañ leen dañu génn nañ dem retrouver seen njaboot nañu toog nañu xam ne Sénégal fi mu toll nii pour que ñu def transition sans dépend des Sénégalais et kenn ku ci am nga ci sa part de responsable il suffit yëngal am on parle de quinze mois ñu ne dafa de euh, neuf mois dix mois ñu ne dafa sori mais su yëngu-yëngu amee on risque d'aller jusqu'à deux ans voire situation de chaos am affaire yi di a métti na ñëpp calmé wu li fi des xel a koy def li ci des teey moo koy def li ci des wa dialogue la laaj ay dialogue boobu nañ ci dem. très bien Kader alors euh, Serigne le président Macky Sall yàgg na clamé que moom euh, tëjul jàppaluwul yoonam nekkul ci mbiru yoon mais ce qui se passe présentement nous montre que moom mooy tëj mooy tijji euh, surtout que libération yi amul benn procédure. waaw xam nga ci magistrature Macky Sall loolu moom je pense que c'est un constat très réel bu ñu def. def nañ en sorte que on a installé dans ce pays une euh, justice à de vitesses une zizanie de Kumba am ndey et de Kumba amul ndey xool ko pratiquement ci ñi nga xam ne ñoo ñoo jot a génn mhm. et on les appelle des détenus politiques boo xoolee ci benn parti politique rek lañ bokk wala ci opposition bi donc lañ bokk alors que boo xoolee pour la plupart les faits yi ñu leen toppee le mêmes faits là gis nañ des gens yu bokk ci coalition bennoo wala ci partem wax lu xam méngoog loolu mais pourtant dara fekku leen si donc tey boo jëlee le cas de Oustaz la mu wax ñun ñëpp dégg nañ ko boo xoolee ñeneen ak ñeneen Cheikh Oumar Diagne tey euh, Kayta Fadilou Kayta qui a posé une interrogation sur Facebook Bassirou Diomaye fay bu dénoncer une injustice bu Ousmane Sonko subir ci affaire procès Mame Mbaye Niang ci délai de recours yooyu yooyu yëpp boo xoolee pratiquement ñoom ñëpp ci loolu lañ leen interpellé donc dem nañ ba installé Sénégal ci situation boobu boo xoolee ñu bëree bëri aussi la lañ leen jàppee manifestation participation à une attroupement nangam ak nangam y' a beaucoup de manifestations yoo xamante ni tey aujourd'hui moo ñu conduiroon dans cette situation ba ñu jàpp ñu bëri des manifestations xamante dañ ko waroon autoriser te autoriser wuñ ko. Mm-hmm. pour rappel que aussi le Sénégal sous Abdou Diouf sous Abdoulaye Wade ba maintenant. Mm-hmm. ci régime déclaratif la ñu nekk. donc l'État a manqué de jouer son rôle d'intelligence par rapport ak conflit politique yi parce que souvent damay wax nii yëpp à yi nga xamante ni jox na ko moyens yi nga xam jox na ko Mais malheureusement, l'État s'est retrouvé dans son propre jeu, dans son propre piège. La démocratie, comme je le dis tantôt, a des conséquence Il faut accepter que nit ñi am nañ droit am nañ sañ-sañu li leen na naqari ñu wax ko ak nu ñu ko mën a waxee noonu la ko démocratie mayee mais dem nañ ba certain certain certain moment le président accepté wul loolu donc véritablement justice bi aussi gis nañ ñoo xamante ni véritablement dañuy def day déclaration xam li ñu doon xaar mooy procureur autosaisir aussi mais du ci du ci du ci àddu du ci yëy mais bu dee ñi nga xam ñoo nekk ci opposition bi ñoo ko def donc nga gis ni justice daf siy dugal loxoom beneen bi mooy procureur ñi nga xamante ni jàpp nañ leen ba ñeneen ñu leen wax des détenus politiques mais dafa si am ñoo xamante ni procureur moo génn devant les sénégalais jàkkaarloog ñoom mm-hmm. mais lan la wax am na ñoo xamante ni day ay ay ay terroriste lañ force tra xaw ma force spéciale ñii ñeneen ak nangam ak nangam mais maintenant bu ñu demee ba toll ci son ce boo xam xaw ma dañuy décrisper xaw ma lu ñuy mais le même procureur aussi war na mën a leeral Sénégal sénégalais yi. ci par rapport ak ni ñuy libéré li nga xam ne que moom mooy euh, ñi nga xam dañ leen jàppoon ci kaso parce que moo leen tuumaloon moo yëkkati woon ay tuuma tiitloo sénégalais yëpp. boo xoolee le mot même le mot terroriste bi sénégalais yi di théoriser ci moom la moom la njëkk a génnee kon donc nga xam ni man pour man je suis d'accord pour que ñu libérer ñi nga xam c'est des otages politiques mais aussi il nous doit des éclaircissements par rapport à la libération de ces gens-là mm-hmm. donc na am parce que Ousmane Sonko ñi génn pratiquement ñu bari ci partem lañ bokk. waxtaan mën na am mais liñ ba tey fi ñu mën a tënku mooy ay rumeur Ousmane Sonko bu ñu koy mën a juger mooy par rapport bu génnee ci kaso bi lañuy ñuy commencer mën a juger ses comportements dafa def deal ak Macky Sall ou no mais loolu la venir nous dira. en tout cas de toute façon je pense que moom du dellu ci ay kàddu démb parce que wax na ni du seq ak dara loo xam ne dafay jëm ci ay deal. moom ak président Macky lool loolu il l'a dit dans plusieurs vidéos et l'avenir aussi nous dira mm-hmm. li ci mën a am rek mooy bonne foi je pense que président Macky moo jàppoon ñii injustement mu leen libéré waat mm-hmm. donc le contrôle de la justice par le président Macky Sall loolu moom xanaa boo génnee ci mbedd mi boo ko laajee sénégalais sax xam nañ ko le président Macky Sall contrôle la justice manipule euh, ñenn ñi nga xamante ni dañ nekk ci magistrature bi. loolu moom c'est une réalité. parce que le constat moo ñu wan y a une justice à deux vitesses dans ce pays. Mhm. kumba am ndey kumba amul ndey. c'est vrai voilà. alors président. waaw fi mu daane lay lay lay commencer le président Macky Sall contrôle la justice moi j'ai toujours dit que loolu tamit dafa.